gaa combat baa ngi noonu Nguer ak Bour Sine Nguer moo ngi jóge taal singa moo ngi jóge écurie Bawal arbitre bi sifflé na à gauche Bour à droite Buur Siin Ngeer bu sa Buur Siin Ngeer sul nay tànkam Ngeer Buur Siin baa ngi noonu ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar Nguer door na ko Nguer jël na ko Nguer a ngi xeex ak moom Nguer xeex na Abdou Sine Nguer Nguer jàpp na ko joxe na tànk ba wet ga da ngay daanu waaw daanu na Nguer daanu na Buur Sine daan na ko Buur Sine daan na Nguer Buur Sine daan na Nguer Buur Sine daan na ko